tem dimbalante ci jamonoy mbas jàppalante jàppalante ba ko yàlla diglee ci alxuraan yàgg na ba mu mel ni moo indee zakat ñeel fàqir yi ak miskin yi ak ñi mel ni ñoom wolof njaay ne ku tànne sa moroom dimbale ko te yàlla tax taxawaayu bépp doomu aadama ci jamono ji ñu toll rawatina ab julit mooy ci sutura nga mën ko xettile sa naataango julit wopp si moom dikk xamul julit xamul yéefar xamul buur xamul baadoolo ba ñu bari jàpp na sax eh, ci buur la gën a aay ngir bëgg ko fàttali boromam ñu bari eh, yàlla leen gan ñu fuuy eh, ak seen wërsëg jarul ñuy sori fii ci réew mii ñu dëkk bokk ko ñun ñëpp boo ubbee sa buntu kër di nga janoo ak ku la te bu la rombee nuyoo la bakkan ba soo doon dee ak xiif sax doo ko ñemee wax sa soxla te moo ne de ñu bari ci ñoom li tax ñu fuuy bay tiitaru di ay ndombol tànk ci askan wi la ñu ko jëlee askan wi lépp war a dellu ci ñoom te duñ ci jot te duñ ci mës a jot ndax ñii jiite jàpp nañu ne fileeg askan wi ñu ngi xiif dëkkee di daw ci seen ginnaaw fileeg ñoo ngi réer Euh, dëkk ci ñu leen di nax te nax yooyu ku ci teelu la yeewu euh, sa aljana mën naa mujj ci loxo yi ñoom politique yi nga jël seen sawara bu yomal xiyaamee ndax seen i pexe euh, ku ci bëgg a yeewu jàppal ni lu ñu la may yaa ko moom jarul sar xolle bay dóori pooj ndimbal li ñuy joxe di ko joxe nu mu leen neexe amul kenn ci ñoom ku ci sëb dërëm tàbbi ba ci oto ba ñuy dugg climatiseur ba ñuy taal lépp askan wi moo leen ko gàddul te sax am na ñu ma ni dara leeruma ci ndax wax lu la leer lu bari ci ndimbal li ñuy joxe la ñu cay sàcc mu ëpp fuuf la ñu cay séddale ñoom séddalekat yooyu nga xam ne ñoom la ñu teg ci seen loxo luubal li waaye ku ci xamoon li ci alalu mbooloo di xam ni pepp xorom ëpp na ci luubal ko ndax jéggi siraat waxuma la ay millions yi dërëm wasalaam